asalaamaaleykum euh, chers internautes ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci seen site préféré euh, tey ñu ngi dalal euh, Pape Modou Fall muy directeur de l'emploi nekk aussi président du parti du rassemblement pour la vérité dëgg moo nekk aussi leader coalition républicaine sàmm suñu réew monsieur fal ñu ngi leen nuyu. ñu ngi lay fay bu baax Khalil di nuyu aussi ñi ñi seetaan à travers Sénégal. Euh, donc euh, depuis un moment ñu ngi seetlu que ni actualité bi mu ngi euh, report pré euh, élection présidentielle yi moo ko marqué donc bëri na andi na coow lu rëy ci biir réew bi donc concernant même opposition bi euh, comme euh, la société civile donc ku nekk mu ngi joxe sa xalaat par rapport a report boobu c'est vrai que aussi ñu bëri d'accord uñ ci yow en tant que déjà membre de la mouvance présidentielle est-ce que vous vous attendiez à ce report déjà Euh, report bi lu jaarul la lu war a am la parce que problème yi ñu constaté ci di ni processus bi di déroulé woo dafa bari parce que déjà premier problème bi ñu constaté mooy euh, le fait que un candidat dem di jéem a laaj fiche ñu wax ko ni ko duñ la jox fiche parce que nekku ci fichier électoral yi ensuite ay candidat déposé euh, seen ay clé USB seen ay données parrainage au niveau du conseil constitutionnel ñii ñu wax leen ni leen la leur clé est inexploitable man en tant que informaticien moi je me dis mënoo éliminer candidat sur la base d'une clé inexploitable parce que si la clé est inacceptable ça veut dire qu'il n'y aura pas de contrôle de parrainage donc loolu déjà manquement la boo xamante ni c'est injuste c' est anormal pour que ñu éliminer ci candidat. ok mais avant ñu eggali foofu yaa ngi wax waxu manquement mais manquement yooyu déploré nañ ko en 2019. non pas pareil parce que moi 2019 j' au cœur du du processus du parrainage lu bari liggéey naa ko ci. mais li am nii amul woon parce que 2019 amul benn yoon bu ñu déggee ni am na ko indi claim ñu ne mënuñu ko exploiter. non no non loolu loolu amul woon 2019 amoon na ay doublons amoon na et cetera mais amul woon aussi plus de 900000 électeurs yu ñu wax ni dañoo ñëw dugal leen gisuñu leen ci fichier électoral bi donc doona yooyu yëpp. amul woon ça veut dire que cette fois-ci dafa am ay problèmes yu ñu constaté yoo xamante ni nii effectivement ñu continuer di wéy moom noonu parce que injustice lay indi. beneen bi may rappelé mooy euh, gis nga parenage bi mënul dem moi je me je me suis toujours dit yëpp même 2019 ah parce que 2019 ci parrainage moi j'étais contre le parrainage. bi ñu demee nee naa leen lii mënul lem parce que li tax mënul dem mooy boo yoree photocopie carte d'identité jàmbur rek da koy parrainer déjà foofu la incohérence bi commencé. ça veut dire que tey bu ñu doon continuer même bu fekkente ni discriminant bi li ñuy woowee discriminant le nouveau élément parce que boo gisee ñu wax discriminant mooy fichier électoral bi nit ñi dañ koo yoree ci année bu nekk bu élection amee dañuy jox nit ñi fichier électoral tey sama machine fichier 2018 mi ngi ci ñeneen boo demee seen machine fichier élection législative yi wala élection locale yi mi ngi ci mais fichier boobu nag dañuy indi champ yi nga xamante ne nii par exemple non nom prénom numéro carte d'identité euh, date de naissance euh, ak adresse bi loolu la ñuy def ak numéro électeur bi données yooyu lañ ciy def léegi comme dañ ko yore bu ñu def parrainage dañuy indi un élément nouveau moom la ñuy wax discriminant bu nekk fichier bi ñu ne par exemple date d'expiration voilà maintenant <coughs> ma continuer foofu kon carte d'identité bi képp ku ko yore rek bu la neexee nga tëju ci ne remplir te ki ngay koy remplir carte d'identité du ko du ko xam kon loolu déjà problème la te discriminant yi bu ñu leen choisir may rappeler ni choisir nañ trois fois discriminant 2019 dañ choisiroon discriminant numéro CEDEAO élection yi passé ñu choisir discriminant taille bii ñu choisir discrimination euh, discriminant date d'expiration beneen beneen yoon dañuy choisir beneen discriminant donc à la boo ko defee 4 cinq 6 élection élection da ngay dem ba pour nga choisir discriminant sax problème lay doon ça veut dire que affaire bi mënul wéy c'est pas possible te comme mënul wéy il faut nit ñi toog càmbaraat ko sérieusement et techniquement ñu xool ba xam parrainage bi dañ ko war a arrêter wala benn forme de filtre la ñu war a indiwaat boo xamante ne ni moo am cohérence tey bu fekkonte ni dañu introduire numérique ñoom am assez de moins de telle sorte que arrondissement bu nekk commune bu nekk ñu teg fa benn dispositif de parenage électronique nga xam bu nit ki ñëwee bu duggee empreinte bu jàllee benn yoon c'est fini y aura pas possibilité d'avoir doublon parce que kenn ku nekk da nga ñëw parrainé ki ngay parrainé loolu ça a plus de sens bu boobaa données yi ñu ci am dana fiable et tout sera centré centralisé au niveau central question technique yi ñu génn ko conseil constitutionnel de telle sort que lépp lu jëm ci parrainage rek même la commission là bi ñu wax ci code électoral bi ñu yóbbu ko direction générale des élections de telle sorte que nit ki buy ñëw day ñëw indi quittance am ñu jox ko fiche mu dem jël clé bi dem jël ay données mu dugal ko ci ñëw ñu contrôler ko bu ñu ko contrôler mu jàll ñu defal ko attestation mu boole ko ak yeneen dossier am dem déposer conseil constitutionnel je pense que nit ñi xam nañ ko problème yi ñu am yëpp ci conseil constitutionnel tey mooy dañu leen a def loolu luñ mënul. mais les fichiers ci euh, ba ñuy dem conseil constitutionnel ba léegi foofu déjà aussi il faut Sénégalais xam ni fichier bi mënul disponible. parce que fichier électoral dafa lié wu ak carte électorale. mais au moins l'opposition. non ma expliqué la li ñuy wax amul sens. opposition li ñuy wax c'est insensé. fichier quinze jours avant élection lañ koy joxe mënoo ko joxe avant pourquoi parce que carte électorale. moo liiw ak fichier électoral parce que tey bu ñu la joxee fichier boo xamante ne ni euh, fi nga waroon voté mu nekk abri provisoire wala dara dañ ko déplacé wala classe bi nga waroon a dafa yàqu mënatoo fa voté ñu yóbbu la ci beneen bureau à ce moment là yow fichier bi la jox day obsolète te loolu day indi ay problème moo tax bu ñu stabiliser carte électorale ba stabiliser fichier parce que fichier bi dafa lié wu ak données électorales kenn ku nekk ban lieu de vote ngay voté kenn ku nekk ban bureau de vote ngay voté à ce moment nag bu ñu ñi ñu wax ni candidat lañ ñu jàll ñooñu danañ yëkkati fichier bi jox leen ko pour que seen ay nit bu ñu waree voté xamuñu fu ñu war a votee bu ñu jëlee seen numéro électeur dugal ko mën leen ñu mën leen a wax ne le lieu de vote sàngam bureau de vote sangam la ñuy voté encore une fois dafa bari confusion dafa bari ñi nga xamante ne ni li ñuy wax maitriser wuñ ko xamuñoo ko te loolu ñooñu ñoo indi problème yi. mais comme on dit euh, gouverner c'est prévoir c'est déjà aussi CEDEAO rejeté woon na parrainage donc kon ñun xamoon ngeen ni parrainage bi déjà baaxul lan moo tax est-ce que euh, prévoir lu leen woon loolu avant ngeen jéem a euh, anticiper par rapport ak euh, pour problème yi bañ a am. non xam nga man wax naa sama sama sama li ma gëm. waaw je suis bi baaxul mënul wéy. expliqué naa maintenant bu ñu ko digitaliser def innovation bu boobaa peut-être dinañ ko mën a utiliser ci deux formats yi ma la wax beneen bi mooy ñu am ay terminaux yuy permettre nit ñi mën a pare ne par empreinte digitale y aura pas de risque de doublon beneen bi mooy ñu génne les question techniques du conseil constitutionnel parce que loolu day tax ñu jege population yi te ku jege bu ñu leen jegee day tax ñu mën leen a parce que dañ naan ana ak juge ak yore ab logiciel di contrôler yooyu te yooyu yëpp indi day indi jafe-jafe. donc parmi les motifs yi président Macky Sall joxe c'est vrai que joxe na motif yu bëri. Mm-hmm. yi ci gën a jàpp mooy euh, di PDS accusé des juges euh, yi nga xam ne dañ leen jënd au niveau du conseil constitutionnel. Mm-hmm. donc deux dont kenn si ñoom euh, le frère de de Abdou Latif Coulibaly. Mm-hmm. avant ab loolu dinañ si ñëwaat mais par rapport ak déjà motif yi mu joxe. donc mën nañ ne. PDS qui sont dans un parce que seen candidat éligible nañ ko est-ce que loolu aussi voilà léegi loolu mooy élément bi gën a ëpp solo ci rapport bi pourquoi parce que dañ nekk ci impasse man li may wax nag c'est scientifique impasse mooy lan mooy dañuy dox ba xamatuñ fuñ jëm parce que dafa am lu bees lu am loo xamante ni xamuñu ko woon xamuñu nuñ koy réglé mooy lan mooy comme ni nga ko waxee le candidat Karim Meïssa Wade déposé na ñu rejeté ko pour double nationalité effectivement gis nañ ñun ñëpp ni décret génn na même si c'est plus tard booy wane ni per na nationalité française am un bi liste définitive bi génnee ñu gis ni am na benn candidat muy Rose Wardini muy Rose Wardini bu am double nationalité impasse pourquoi ku am double nationalité ñu war la bàyyi nga bokk ci élection c'est-à-dire ci kaawu Rose Wardini kese rek jaroon na reporter élection yi un est-ce que dañ koy bàyyi mu bokk ci élection yi est que jarul woon ñu non loolu laay expliqué un est-ce que dañ koy bàyyi mu bokk ci élection yi buñ ko bàyyi mu bokk ci élection yi ça veut dire quoi ça veut que kon bàyyi nañ mu bokk ci ay élection ku am double nationalité te loolu constitution bi da koo bañ d'accord nga ak man kon waruñu ko mën a bàyyi bu bokk ci élection yi parce que bu bokkee ci élection yi ëllëg nit mën na wax jurisprudence Rose Wardini ëllëg parce que am na double nationalité ñëpp teg ci seen bët ba pare ñu bàyyi ko mu bokk ci élection yi xam nga loolu constitution da koo tere kon benn ngi noonu deuxièmement boo ko exclure parce que ñaari scénario rek mu am soit da nga koy boole wala nga ñàkk boole boo ko ñàkkee boole lan mooy conséquence bi mooy la liste en réalité bi conseil constitutionnel defoon donc ne pas une liste définitive ça veut dire que dugal génn nga ci liste boobu noonu benn candidate te s'il est possible de de d'enlever quelqu'un il doit être possible d'ajouter quelqu'un ça veut dire que kon bu ñu jënnee Rose Wardini war nañoo mën a dugal keneen war mën a dugal Karim Wade wala ñu dugal keneen. est xoolee eh, par rapport ak euh, dossier de candidature yi donc euh, conseil normalement waroon na mën a xam bien avant euh, que ni tel ou tel personne am na double nationalité ou pas donc est-ce que warul wa y a pas kii waruñu xoolaat. par rapport ak dossier de candidature ñu ngi koy déposé euh, au niveau donc ça c' est une très bonne question wax naa sànq ne ci impasse lañ nekk ah il faut nga d' accord ne scénario bu ci am rek c' est problématique voilà maintenant li nga wax noonu c' est une question euh, intéressante et importante parce que euh, conseil constitutionnel amul possibilité xam candidat yi déposé ba xam am nañ double nationalité wala déet mm-hmm. parce que mënul loolu mënu ko mënul wër les plus presque deux cent et quelques pays di dem di xool candidat yi ba xam kenn ku nekk am nga double nationalité wala déet. léegi conseil constitutionnel lim mu man mooy bu nit ñi indee réclamation comme ni mu ko doon defee mu xool ñu xool mu basé wu ci loolu mais je pense que foofu loolu war nañ ñu dialoguer encore une fois foofu sens su dialogue am na parce que conseil constitutionnel côté boobu dafa wane ay limitam ay la wane. comme wane na ay limitam ça veut dire que faut ñu xool nu ñuy réformer texte conseil constitutionnel yi pour que le sénégalais lambda parce que dans tous les cas moom conseil constitutionnel mënut am moyen di wër sénégalais yi ba xam am na ñaar mais le sénégalais lambda bi xam ni xalil kat mën ak dëkk xam naa ni am na passeport wala nationalité beneen bu nationalité sénégalaise mu dem dénoncer conseil constitutionnel cela veut dire que on donne la possibilité à un citoyen lambda d'aller faire une réclamation su gisee ci liste bi lu normalul loo xamante ni am na document yu justifié ni que li normalul et que kii wër sa nekk candidat. ok donc euh, mais soo xoolee je revenais toujours au PDS. donc mm. candidat vrai que conseil constitutionnel à cause de sa double nationalité euh, aussi ñu bëri euh, par rapport ak yenn analyse yu ñu jot a donc euh, on parle de deal entre euh, le pouvoir actuellement avec euh, le PDS mais c'est vrai que aussi soo analyser la chronologie des événements soo xoolee le PDS en 2019 donc ñoo bokk nañ ñi ñi woote ñi woote boycott élection yi donc si législative au niveau de l'Assemblée nationale aussi c'est vrai que demoon nañu ak waa Yewwi Askan Wi donc ils ont fait une coalition dem ci biir aussi ñu beddeeku donc <laughs> événement yi passé est-ce que mënuñu jàpp euh, que ni euh, rapport boobu moom ak PDS ak euh, Macky Sall nekkuñu lëkkaloowuñu par rapport ak loolu. non non en réalité en réalité dafa am lu indi peut-être ànd boobu. lu indi ni ñu ñu ñu ñu bokk problème boobu di ko xeexandoo mooy injustice parce que dañu constater injustice. parce que dafa am koo xamante nii dafa amoon double nationalité. parce que deretam moom ñëpp xam nañ ni c'est un français. mu ñëw déposé. bi mu déposé décret génn mu boole wàlle ko ci dossier am déposé ko. kuy wone ni moom perd na nationalité française am. le 16 janvier. mais bi ñu ñëwee di àtte jour bi ñu àtte plus tard le 20 bi résultat bi di génn mais dañ ko ciy retiré. ça veut dire quoi ça veut dire que retiré nañ ci liste bi koo xamante ni amul double nationalité. mais a arrangé waa benn. non pas arrangé report bi bon man man en tout cas je vais faire benn publication buy wane ni bu ñu demoon ci élection yi Amadou Ba man naa gagné. ci sama analyse personnelle. waaw ci sama analyse personnelle loolu entre parenthèse la ma terminer ci logique bi ma nekkoon donc injustice boobu moo tax parce que tey sénégalais boo yee. ne ko ndax léegi Karim am na de nationalités dans déedéet parce que perd na nationalité française am kon éliminer nañ de manière injuste candidat bu waroon a bokk ci élection yi. léegi nag ñoom comme éliminer nañ leen te gis nañ ni ni ñu éliminer seen candidat normalul ñu porté combat. intelligence bi mooy seen ay député lañ porteloo combat bi ñu dem à l'assemblée daan ni dafa am luñ constaté mooy euh, soupçon de corruption et autres léegi ñu ñëw ni dañuy def commission d'enquête parlementaire ñooñu aussi ni comme dafa am lu am te liñ dégg tudd nañ ci suñ candidat nañ ànd setal ko c'est tout simplement ça c'est-à-dire alliance boobu li ko gën a dëgëral li tax mu am dëgg dëgg dëgg mooy le fait que ñu tudd ci candidat Benno Bokk Yaakaar. mais est yow tey ñu ngi waaw mais c'est que aussi bon dans tous les cas xam nga ku xam ku sañoon xam dëgg. Mm-hmm. ku sa ñoon xam dëgg fu mu nekk. si beneen moyen peut pas beneen moyen xam nga comme ay député ñoo ko porté on ne pouvait pas faire autrement. est-ce que andi nañu aussi des preuves. la xam nga loolu ñun xamaguñ ko. Ah. xam nga bi def na benn sorti daan ni moom dañ koo tuumaal mais du ci dara kon c'est c'est clair. maintenant ça veut dire que jour di ñëw avec la commission danañ am danañ ñu édifier ci lu bare bare. ok donc euh, y en a même yu pare ciy wax ne ni euh, euh, bi pare na candidat bi pare na parce que déjà presque wër na Sénégal premièrement deuxièmement dispositif logistique. bi nga xamante ni nii moom la waroon utiliser ci campagne bi je pense que y a des vidéos yu circulé yu wone ni am na lépp li nga xamante ni mooy dispositif logistique bi nga xamante ne nii moo koy permettre mu dem ci élection kon kooku lu ko dese woon c' dalay baat campagne wax Sénégalais ñu votel ko loolu rek moo ko dese woon. aussi euh, gis nañu Abdou Latif Coulibaly récemment ba mu démissionné moo nekkoon secrétaire général du gouvernement donc démissionné na mais si benn émission bi ñu ko suivre aussi donc moom si boppam il reconnu que ni. Euh, euh, góor gi dem élection. non c' du n' importe quoi. par rapport non c'est du n'importe quoi parce que non c'est du n'importe quoi parce que kiy wax amul woon droit à la parole comprendre nga parce que tout simplement moom miy wax ki ci nekk di le président Macky Sall jiwu ko li tax mu am comportement jiwu ko lu tax mu am comportement boobu mu am premièrement deuxièmement ay vidéo ngi circulé yu wane ni candidat bi logistique bi mu ko waroon a permettre mu dem ci élection ak investissement boobu yëpp def na ko les vidéos circulent je pense que aprè bu ngeen xool mën ngeen ko gis ajouté ah, ko quelle commission au niveau des comités électoraux voilà non les comités électoraux kenn ku ne xam ne ni ngi ko doon installé ñu ngi ko doon installé <laughs> un po partout te mi ngi doon mi ngi doon continuer waaw ah, mais loolu lañ ko jugé ah loolu lañ ko jugé parce que wax du n'importe quoi weesul peut-être ci sama jàngat nga def 12 ans ak kenn yow ci sa bopp nga waxal sa bopp ni dama feebar pendant un an tëdd ci lal te génne wuñ ma ci gouvernement bi. voilà xam nga kooku aussi euh, na ma yàlla bal mais lu bari des na ci valeur. voilà ci li ma ko teg mooy li wax moom ci boppam moo ni dafa tëdd ci lal feebar panna un an président de la république ko toppatoo di ko nemmeeku te génnewu ko ci gouvernement loolu ki ko defal dese lu la daa man de en tout cas ku ma ko ku ma ko defaloon ku ma ko defaloon ba may ñàkk sama bakkan loo nekk ma nekk ci voilà. naka nga jàngatee aussi euh, si rapport euh, présidentiel. waaw bon pression bi aussi il faut ñu xam ni suñu état nous avons un état souverain te ñun Sénégalais yi duñ mënuñu interférer ci élection wala ci yu kenn. ma joxe benn exemple pour wax la ne la ñoom ñiy wax ni ñoom ñoo gën a démocratique seen pays yooyu moo ñoo gën a nekk ay pays démocratique Sénégal mais boo demee ci internet Ségolène Royal. def na fi élection ñu gagné ko mu ne dañ maa sàcc les vidéos sont disponibles sur internet c'est de la tricherie et quand je en entends parler de démocratie en Afrique ça me fait rire y a pas plus grave que ça déggoo ma de dama ne ñi ñuy jéem a taxé loolu ils ne sont pas leurs pays ne sont pas plus démocratiques que le Sénégal li ma lay y a des preuves si une haute personnalité moom moo sañ wax ni c'est de la tricherie si je les entends parler de démocratie en Afrique ça me fait riir donc kon ça veut dire que amuñu ay leçons yu ñu war a jox Sénégal pays démocratique la d'ailleurs alternance yi fi am yëpp wane na ko li am nag mooy décalé nañ ko de quelques mois mais yaa xëyti nañ leen toog waxtaan ko nu ñu stabiliser li nga xamante ni moom lañ bokk décembre soreetul kenn ku nekk préparé wu ñu dem ci élection yi ci jàmm ak salaam moo gën ñu fi voté ci violence ak di génn naan dañuy perturbé ça n'a aucun sens. huit mois bariwul na ñëpp mobiliser wu li am muy ay manquement yuñ constaté ñun ñëpp ci fichier électoral bi ñu ne am na 900000 personnes yu nekkul électeur mais ñu lancé aussitôt audit du fichier électoral li am ci parrainage bi ñu gis ne ay problème am na ci ñu xool nuñ koy réglé. ak yeneen ak yeneen ak yeneen problème mu double nationalité bi aussi pourquoi ñu bañ ko mën nañ ko génne ci daane il faut être de nationalité sénégalaise delluwaat ci li ñu nekkoon parce que ku yore réew mi boo amee nationalité sénégalaise ak beneen nationalité boo mën a am solo l' essentiel mooy nga mën a yore réew mi boo amee xam-xam bu yore réew mi am programme bu yore réew mi am vision bu yore réew mi même boo amoon dix nationalités on s'en fout ñun ce qu'on veut voilà. mais tout à l'heure yaa ngi wax waxu démocratie mais est jàpp nga ni euh, restreindre internet wala retirer par exemple Walfadjri licence am donc bokk na ci démocratie. voilà restreindre internet moom mën nañ koo def ci benn contexte ci benn période de courte durée ça peur être important pour le pays. voilà par contre affaire Walfadjri bi moom man ànduma ci. parce que li tax ànduma ci mooy majorité acteurs politiques yi fi nekk yëpp damay wax sama akulaay taala ñun ñëpp. wal fajiri lañ doon dem dafa def émission kenn ku amoon looy jàmbat ci réew mi y compris man ak keneen ak keneen fa nga daan dem ñu ubbil la sa tribune nga wax ba xaabaabal wax li la neex te terewul pourtant bi nga doon wax même ligne éditoriale bi la donc c'est pas parce que nekk nañ ci contexte boo xamante ne nii nit ñi ñu ngi wax ay affaire u violence ak yooyu mais dañ leen suspendre mais quant à aller jusqu'à retirer la licence de cette chaîne de télévision moi pense que loolu c'est exagéré te njiitu message moom mi nga xamante ni nii contexte bi gis na ni contexte bu tendu la moom mi nga xamante ni nii gis na ni dafa woote dialogue moom mi nga xamante ni day woo Sénégal yi daje réconciliation nationale am nu mu gën a gaawee ñoo ñu leen delloo seen licence parce que aussi entité la boo xamante ni am na ligne éditoriale am tey boo demee ci site internet yi am na ñoo xamante ni site satirique la lu leen neex la ñuy wax lu leen neex la ñuy bind ainsi de suite te Walfadjri moom nekk na patrimoine boo xamante ni Sénégalais bu ne gis nga ci sa bopp en tout cas man gisoon naa ci sama bopp kon tey c'est hors de question wala c'est anormal que ñuy jël seen licence pour man mën nañ suspendre rek bu ñu suspendre rek après un certain temps fekk affaire bi daal ñu delloo leen seen licence je pense que njiitu réew mi moom mi woote dialogue maa ngi koy lancer message ñu dimbali ba Walfadjri ñu delloowaat ko licence am pour parce que loolu dafa bokk aussi ci jàmmi réew mi. ok yaa ngi wax waxu contexte bi donc opposition bi tey euh, ñu ngi wootee euh, manifester donc des enseignants aussi ñu ngi menacé perturbé année scolaire loolu yëpp euh, lu ko waral mooy report élection boobu noonu. que selon vous jar na ko commencé yëngu nii. bi bu ñu ko deful woon ci lay gën a garaawee ci sama xalaat boobu. Hmm. parce que tey bu ñu woon ba ne Amadou Ba gagné na ak li fi am lépp il faut nga suivre déjà constat yi ci clé USB constat yi ci le fait de refuser de donner une fiche de parrainage à un candidat constat yi ci candidat spolié constat yi ci double nationalité bu war bokk constat yi ci double nationalité boo xamante ni kooku amatul double nationalité ñu écarté ko manquement yooyu yëpp tey buñ ci demoon daal ni Amadou Ba gagné na 54 pour cent est-ce que réew mi du tàkk est-ce que duñu attaqué conseil constitutionnel dañu waxante dëgg problème yi ñoo bari nit ki boo xamul fi nga jëm da ngay dellu fa nga jóge woon te li ma wóor ba wóor mooy tey bàyyi woon affaire bi Amadou Ba gagné moo gën a garaaw téeméeri junni yoon ñu arrêté ko toog waxtaan ci suñ biir parce que affaire bi aussi c'est pas méchant jërul ay manifester jërul ay génn mais jërul aussi ay syndicalistes ñoo xamante nii seen ay association ay association apolitique lañ ça c'est politique li ñuy wax nii politique la ay question de candidat la question de parti politique la question de élection présidentielle la politique la kon syndicat lan lay wut ci politique ba naan day rassembler wu pour que ñu rétablir la calendrier électoral c'est insensé kenn ku nekk da nga war a xam sa rôle nga am ci rôle bi nga nga war a am moo tax le syndicalisme aussi au Sénégal il faut ñu càmbaraat ko xam nga xool nuñ koy organiser wàññi le nombre de syndicats xool nan lañ leen regrouper rappelé waat leen li nga xamante ni mooy seen ay vraie mission parce que syndicat bu war a lutter sur des questions pédagogiques xool nan lañ gën a mën a yokkee xarañte jàngale ak njàng apprentissage et enseignement moom yaakaar naa ne foofu la ñu leen war a gën a xaare que ay élections ñu naan dañuy dañuy dañuy génn parce que. waaw non les part de l'opposition moom sont toujours dans le rôle. gis nga Sénégal ma xamal la ñaar yi du fi jóg doo woote dialogue ba ñëpp ñëw. bu woote dialogue ba ñëpp ñëw du fi am 2018 2019 2018 bi ñu wootee dialogue PDS ñëwul Pastef ñëwoon na ex Pastef du dëgg 2019 après élection présidentielle bi bu ñu wootee dialogue nit ñi am na ñu ñëw am na ñu ñëwul 2023 bi ci dialogue bi ñu jógee PDS ñëw na Khalifa Sall ñëw na mais bu ñu wootee beneen dialogue si tey Hadjibou Soumaré nee na day ñëw <laughs> Boubacar Camara nee nañ day ñëw dana am acteur yu ñëw dana am acteur yu ñëwul muy benn. voilà Mohamed Boun Abdallah Ali Nguy ak ñeneen ak ñeneen kon heure boo fi wootee dialogue mënoo fee woote dialogue ba ñëpp ñëw maintenant principe bu dialogue bi war nañ koo revoir mooy ni ñuy dialoguer le format. war nañ koo revoir. dialogue bi li ko war a wund mooy ñu corriger yi am. wax naa fi ñetti problème yoo xam il faut ñu régler ko parrainage citoyen mënul continuer. même buñ ne dañ koy réajuster aussi mënul dem am na am na durée de vie boo xam ne bu fa àggee du demati parce que duñ amati discriminant muy benn deuxièmement question technique yi ñu génne ko conseil constitutionnel ñoom lii seen rôle lii seen mission ñu bàyyee leen ko parrainage bi mu am benn commission même bu doon ne day autonome chargé de de contrôler la parrainage ñu gérer ko ba pare ku fa jàll ñu bind la attestation attestation boobu nga ñëw indi ko conseil constitutionnel deux troisièmement conseil constitutionnel il faut ñu réviser ko réclamation ñu permettre à ce que citoyen sénégalais bu nekk mën na def réclamation conseil constitutionnel boo gisee ci liste bi candidat boo xam leer la yow kii double nationalité la am mais lan mooy nday nga gis ci liste koo xam ne am na ay plusieurs nationalité nga nekk sénégalais ko te amoo possibilité dem xeex ko te pourtant conseil constitution bi dañu il faut être exclusivement nationalité sénégalaise muy benn beneen bi mooy conseil constitutionnel aussi ñoom ni ñuy liggéey nga xamante ne ay question de droit ay question dañuy xool texte yi xool carte électorale xool constitution ñu jàll mais bu fekkente ne ni recours am na parce que nit day juum manquement ñu def benn délai ci calendrier bi électoral ci processus bi de telle sorte que délai boobu war nañ mën a may ñi def recours ñi def recours parce que bu fekkente ni toujours dañ koy fermer ça veut dire que à ce moment toujours mën na am kuñ génne par injustice mën naa am kuñ ajouté te waruñu ko woon ajouté mais bu délai yooyu amoon tey nit peut-être mën na ni diwkat gis naa ko jàll na ci liste définitive bi alors que am na double nationalité. dialogue bi passé aussi on a vu que ni si lañuy rétablir Karim Wade ak Khalifa Sall donc est-ce que yaakaar nga na euh, ex-Pastef si dialogue bi. dialogue bi ci lañ rétablir <laughs> Khalifa Sall nga wax ak kii waaw man dialogue yëpp bokk naa ci parce que je membre de la commission politique dialogue bi passé ak dialogue yi passé yëpp maa ngi woon ci commission yi bi passé dugal nañ grace parce que am nañu constaté ni effectivement kuñ gracier comme kuñ bénéficier d'amnistie war nañ xool lañ lay réhabilité looloo tax ñu dugal leen mais comme condition yooyu remplir nañ ko ñu jàll mais attention dialogue bi génnewul lool rek te dialogue bi génn na problème boo xamante ne tey moo ñu topp dialogue bi passé am na lu ñu ci def loo xamante ni nii tey bokk na ci lu ñu indil problème. non non non pas le cas Karim le cas Karim ak le cas Khalifa loolu wax naa la ne la grâce bi lañ dugal. c'est normal loolu c'est normal mais parrainage bi ñu réduire. bi ñu réduire ak montant 30 million boobu ñu fixé mais loolu il faut ñu revoiraat ko. mën nga gën a expliquer. xam nga cinq candidats lañ amoon du dëgg mais boobu. pour nga jàll parrainage 0,8 pour cent lañ la doon laaj minimum A1 bii ñu wàññi ko def ko 0,6 pour cent mu correspondre à 44 231 ñu bari jàll. waaw kon loolu erreur la waruñu woon laal loolu même bu doonee man wax naa ni je suis contre le parrainage citoyen un de deux la ñu defaraat beneen erreur mooy caution bi léegi 30 millions lañ ko bloqué. plafond te caution bi c'est à revoir tey même du pour dara mais li état nar a dépensé ci xaalis pour organiser ay élection par rapport ak nombre de candidats bi c'est sérieux du Sénégal bu jóg rek war a ne wax ni dama war a nekk candidat yore réew mi ñu jox la ay milliards ay budget sept sept mille milliards ak yooyu donc kon war nga am benn niveau bi xam nga boo xam benn stabilité financière sama xalaat laay wax de war ngaa mën a am benn stabilité financière boo xamante ni yow réew mi rek moo la ñor parce que am réew du caaxaan war waruñu def ku jóg ñu jox ko ko kon caution boobu war nañ ko xolaat kon dialogue bi buñ demaatee dinañ xool parrainage bi mais aussi di nañ xool caution bi mais beneen manquement bi wax naa ko mooy da dem déposer sa caution ba pare am sa attestation wala sa quittance boo ñëwee doog jël sa fiche parrainage bu doon ne dañuy maintenir parrainage bi loolu mooy li normal mais ñëw deux cent soixante et quelques personnes ñëw sonal administration bi jël ay fiche te yow leer na ne la yow boo gisee liste bi rek leer na yow presque cent cinquante yëpp ay farceur lañ bëgguñoo sax nekk candidat dañoo bëgg siiw rek donc loolu aussi manquement la yoo xam ne yooyu yëpp dialogue moo koy corriger voilà concrètement sur le cas gis nga dialogue dialogue moom lu ne mën na ci am may rappeler principe bi ñuy defee dialogue peut-être ñu bari xam comprendre dialogue ni koy defee mooy bu ñëwee ba dajaloo dañ naan kan mooy jiite dialogue bi ñu ne nañu wut ay autorité nañ wut benn commission wala nañ wut une personnalité dialogue yooyu passé ñu def list daan ni ñii kat am nañ ay compétence am nañ xam-xam neutre nañ war nañoo mën a jiite dialogue consensus am ci ki koy jiite wala ñi koy jiite bu doonee commission ñu bu buñ accepté loolu ñu toog autour d'une table daal ni ci lan lañ war a waxtaanee xam nga ay pole la kenn ku nekk jox say proposition ci lii war nañ waxtaane ci parrainage war nañ waxtaane ci kër mooy organiser élection yi d'ailleurs en passant man bu ma doonoon le président de la république élection yi di ñëw damay jël benn ministre ministère di def benn ministre en charge des élections mu génne ko complètement ci vole boobu nga xamante ni parrainage bi aussi bu boobaa moom dana ko gérer waale xam nga yooyu yëpp ay kii la yoo xamante ne nii bunt bi ñuy njiitu réew mi ubbil pour man war nañ cee profito régler problème yu bari voilà donc kon loolu lépp bu ñëwee ñu def stabiliser point de discussion yi def terme de référence yi xool code de conduite bi valider ko doog ko commencer travaux yi maintenant format boobu damay wax format boobu c'est à revoir comme dialogue pragmatique lañ wax man je parle techniquement nekkuma ci politique politicienne comme dialogue pragmatique lañ wax li gën a li jaadu mooy candidat bu nekk ci 93 candidats yi ñu amoon possibilité déposer caution au moins ñu candidat bu ci nekk ñu laaj la yow lan nga yaakaar ni war nañ koo mën a waxtaane ci dialogue bi ak lan mooy problème yi ñu war a corriger ñu envoyé par mail wala ñu envoyé donc un fichier ñu jël loolu lépp woo ñëpp corriger ko parce que ce dont il s'agit dialogue pragmatique bi mooy mënoo jël dialogue bi aussi ubbi ko ci Sénégal yëpp il y a presque plus de 300 partis ñii ñëw naan ñii ay noona la ñi lañ ay lii lañ ay et te en réalité bu ñu ñëw ñooñu amul ñu benn impact ci sud bi da ngay jël ñu am ñoo xamante ne nii li ñuy wax ak li ñuy def day am impact ci sud bi mooy ki mën a nekk candidat kooku war nañ ko déglu ñu xool élection présidentielle yan jafe-jafe la ci gis le sénégalais lambda bi nga xamante nii moom xalaat na ni lii mu def contribution bind envoyé ko direction générale des élections daani man lii laa yaakaar ne léegi léegi léegi donc loolu la ñu jël nag compiler ko mu nekk loo xamante ni rapidement dañ ci discuter te comme délai yi dafa gàtt y a un problème ci fichier deux fichiers trois fichiers ya a des sénégalais yu ñu exclure nee nañ même loolu am amul parce que man j'étais membre de, du comité technique de l'audit du fichier de 2018 maa ngi fa woon en tant que membre gis naa ni nous avons un bon fichier mais comme jiixi jaaxa am na ci mais ñu auditer rapidement ci deux mois wala voilà, un mois un mois mën nañ ci auditer fichier ñu préparer loolu ubbi affaire yi jox leen accès ñu xool ñu contrôler ñu ñu corriger liñ ci war a corriger am fichier bu stable dem ci fichier bu stable boobu ak yeneen yi ma fi wax. ok yooyu yëpp ay proposition la pour. voilà yooyu yëpp ay proposition la pour dialogue. mais par rapport ak euh, dernière sortie Souleymane Jules Diop donc bu mu naan euh, le président Macky actuellement par rapport ak contexte euh, bi mu nekk taxul na famille yëpp au Maroc. loolu moom démentir nañ ko loolu moom. waaw ñu jege njiitu réew mi demantir lañu. ah mais moom moo ko xam ah, peut-être il veut se faire voir ou se faire entendre bon Souleymane Jules Diop réellement est-ce que acteur politique la boo xamante war naa mën a prononcer wu ci problématique politique yi am ci réew mi je ne pense pas parce que dafa am ñuy dund ñu ñuy dund comme li ma la ko waxee techniquement dafa am ñuy dund processus bi nga xamante tey boo waxoon étape processus yi yëpp comprendre nañ ko mën nañ cee wax xam nañ li ñu considéré manquement bu ñuy dialogué xam nañ ci li ñu war a dialogué parce que du ke wax euh, sortir du génn pour def révélation wala génn pour wax ñaan eh, diw de wax na lii non c'est pas ça ngay wax lu mën a jariñ réew mi da ngay wax lu mën a jariñ réew mi lu ko mën a jëmee kanam en de dialogue wax naa ko sànq ni dialogue dialogue la bu nit ñu toogee am lu ñu waxtaanee ñu ni nañ leen waxtaanee lii buñ ko exclure buñ ne nañ leen waxtaanee ka kaawu Ousmane Sonko nañ ko waxtaanee buñ ko waxtaanee ba dialogue bi ñu am luñ ci d' accord mais loolu la ñu woowee consensus woowee point d' accord ñu xam ne ci lii lañ d' accord bu boobaa ñu jëm ci je pense que communiqué conseil des ministres wax na ko bu ne nañ xool luñ préparé dialogue bi pour aller vers la réconciliation nationale l' apaisement ñu ni kan ñu ni ministre ministère de la justice le ministre de la justice ça veut dire beaucoup de choses ça veut dire que y a des questions de droit des questions ay détenus yu ñu war a libérer ñu ñu war a génne ñoo xamante ne nii mën nañ leen a gracier ainsi de suite loolu lépp dafa bokk ci dialogue kenn mënu ko exclure te bu dialogue bi amee incha allah jàpp naa ni yooyu dana am ok euh, euh, euh, ñu fàttali yaay directeur de l' ngi si jeexantalu émission bi bëggoon nañu avant nga ñëwaat un par rapport ak entité bi ngay diriger mm-hmm. donc nga ñëw ci résultat yi yi nga mm-hmm. jot a def waaw ñun de yàlla dimbali nañu bon déjà def nañ fi quatre ans 2020 lañ fi ñëwoon janvier 2020 ba 2024 biñ ñëwee aussi euh, dëgg yàlla fekk nañ direction bi euh, di exister depuis plusieurs années parce que lu ñu ne la existé na depuis 1979 ça veut dire que yàgg na c'était du temps de Senghor bon euh, ñu ñëw aussi vraiment gis ni am na yu bari yu ñu war a améliorer réagir ñu jublu ci loolu en commençant par la territorialisation du service public de l'emploi mooy fexe ba Sénégalais bi fu mu nekk rek mu am service public de l'emploi moo xam dana am accès moo xam mu bëgg bindu en tant que demandeur d'emploi moo xam mu soxla certificat de chômage moo xam leneen ak leneen donc ça veut dire que euh, à ce moment fexe nañ de telle que tey localité boo dem presque soit installé nañ fa mission locale avant l'arrivée des pôles emploi tey am na pôle emploi au niveau des 46 départements département boo dem dina am pôle emploi boo xamante ni ki bëgg liggéey muy emploi salarié mën na dem inscrire fa bénéficier wu accompagnement parce que ñun on fait maintenant de l'accompagnement nous avons même élaboré une plateforme numérique PAL boo xamante ni danañ mën a accompagner en technique de recherche d' emploi muy benn ñaar ki bëgg a choisir entrepreneuriat aussi nga xamante ni moom dafa bëgg a entreprendre auto emploi kooku aussi ci biir plateforme def nañ fi ay modules yu ko mën a permettre mu entreprendre esprit entrepreneurial et cetera éducation financière rek yooyu donc loolu dañ ci accompagner jeunes yi nga xamante ni danañ leen permettre ñu mën a bind seen business plan ñu mën a définir aussi seen projet professionnel ñi nga xamante ni aussi ay femmes lañ danañu leen accompagner vers l'autonomisation pour renforcer seen seen euh, employabilité renforcer aussi euh, li leen di permettre à ce que ñu mën a jëm kanam parce que may rappeler ni il faut ñu xam ne Sénégal dafa am handicap par rapport ak côté boobu jigéen ñi handicap bi ñu am mooy euh, taux de chômage bi boo ko jëlee xam nga Sénégal dafa am góor am jigéen bien entendu jigéen ñi amuñu habitude liggéey d'accord nga ak man parce que suñ société moo bindoo woon noonu kon tant que ñu ngi bàyyi jigéen ñi ci ginnaaw rek boo xoolee en terme de taux de chômage suñ taux de chômage est xaw tey le taux de chômage est presque de 18 pour cent environ mais boo xoolee ci biir 18 pour cent boobu chez les hommes c'est le taux de chômage égal à 8,6 pour ça veut que jigéen ñi ñoo dul liggéey te jigéen ñi bu ñu dul liggéey toog ci kër yi nga comptabiliser leen ci population active bi bu boobaa sa taux de chômage de yéeg. voilà donc loolu déjà wane na ni il faut ñu accompagner femmes yi leen ñu dem à l'autonomisation ñu renforce seen employabilité côté boobu aussi dañ fay intervenir di former femmes yi di leen accompagner di leen encadrer. donc euh, ci kii nous avons aussi un dispositif ci biir xëyu ndaw ñi bu ñu wax convention état employeur bu ñu permettre a ce que ñu am ay partenariat avec des employeurs privés pour permettre à ce que ñu mën a recruter ay jeunes charge yi mooy li ñuy fay jeunes yi ñu mën koo partager ñun ak employeur bi bon ci programme xëyu ndaw ñi aussi vraiment def nañ ci résultat yu am solo parce que ci objectif 65000 emplois bi ñu bindoon ci document bi tey dem nañ ba dépassé ko plus de mille cent deux pour cent te loolu boo xoolee tey jeunes yu bari ñu ngi ciy liggéey ñenn ñi ñu ngi Sonaget Sonaget mooy ex UCG ñenn ñi ñu ngi ci direction eaux et forêts yi ñii ñu ngi service civique national ñii ñu ngi ci cadre de vie ñii ñu ngi ci ay ay stade nekk ay stagiaires ñii ñu ngi ci euh, santé nekk volontaire de la santé ay volontaire de tourisme ay animateurs socio-éducatifs yoo xamante ni vraiment ñooñu ñu ñu recruter lañ tey ñuy xëy d'ailleurs boo xoolee dernièrement le président de la République wax na ni il faut ñu renouveler contrat wu bénéficiaire wu xëy ndaw ñooñu ci trois ans encore kon ça veut dire que bu ñu jógee ci deux ans demaat ci trois ans yeneen trois ans dana permettre ñooñu vraiment gën a mën a taxaw seen employabilité renforcée wu dëgg dëgg dëgg donc mu wane ni programme bi am na réussite ñu bëree bëri ñu ngi ciy liggéey donc yooyu nag ñu capitaliser ko en terme d' emploi plus maintenant emploi yi nga xamante ni chantier yu mag yi ñoo koy créer les ports les xam nga ports yi ak cent mille logements et cetera xam day ñëw yokk le nombre d'emplois créés par l'État te loolu aussi bokkul ak emploi privé yi nga xamante ni dinañ ko créer ak emploi yi créé travers la convention État employeur fin 2023 on était à 15 140 emplois yoo xamante ni créé nañ ko avec le dispositif de la convention État employeur plus de 400 convention ñu signé ko avec des employeurs privés yoo xamante ni tey ñu bari gis nañ ci seen bopp Euh. donc euh, ñu fàttali tey ñu ngi doon dalal Pape nekk aussi euh, njiital parti pour le parti la vérité dëgg mm. la coalition républicaine sàmm suñu réew. jërëjëf ñu leen remercier rek di lancer waat encore une fois benn dernier message bu jëm ci njiitu réew mi ci dialogue bi mu woote donc jàpp naa ni li ñu war a corriger ci réew mi bari na. te mënuñu ko corriger loolu ñu toog autour d'une table wax nañ ko Ukraine Russie ñi ngi xeex te ci waxtaan la ñu mujjee Gaza Israël ñi ngi ñi ngi foofu ñi ngi xeex Palestine te ci waxtaan lay mujje donc fépp fu problème am rek li koy régler mooy discussion autour d'une table kon li njiitu réew mi woo acteurs yi pour que ñu toog waxtaan xool manquement yi am nuñ koy corriger bépp acteur bu bëgg réew mi rek war nga cee mën a wuy ji beneen bi mooy report bi aussi bu ñu insister acté nañ ko acté nañ ko nañ accepter évidence boobu continuer parce que ñu def élection le 25 février. Euh, le 15 décembre soreetul ñu organiser wu xool nu ñu stabiliser li ñu war a stabiliser le fichier électoral le parenage donc ak yenn mesures yi nga xam mën nañ ko jël ci peut-être conseil constitutionnel exclure le parrainage génne parrainage foofu et cetera donc loolu c'est important beneen bi wax nga ma ko sànq muy Walfadjri moi je suis pour que ñu delloo leen seen licence parce que télé boobu patrimoine la amul bépp bépp sénégalais acteur politique en commençant par ñi fi gën a nekk ay mag ba tey les jeunes politiciens boo gisee ñoom benn canal la bu ñuy utiliser pour exprimer wu joxe seen point de vue joxe seen opinion kon yaakaar naa ni donc dem ba di retirer seen licence loolu tout de même je considère que c'est exagéré mais ñaan di njiitu réew mi moom mu ñuy ñu yëlif ñun ñëpp mu xool nan lay mën a régler problème wal fajri boobu. maa ngi leen di fay di la remercier Khalil yow ak sa technicien ak ñi ñuy seetaan ñëpp à travers euh, Sénégal.